waaw mooy sans moom ba mu daj moom yaa fii star bi waxante dëgg yow yaay staru télé bi nag lii la yàlla dogal de man day ñamaa ñoo sama xol bi waaye dama koy nangu rek yaa star bi nag yaa star télé bi du dëgg bismillahi rahmaani rahim xaalis asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah imaam imaam maa ngi laa ziar ci ci aljuma ji na mu ziar imaam imaam ñaanal Sénégal te moom umra na sax macha allah kan ci ah, macha allah ah ah danga demoon je comprends je comprends lu tax tax je comprends lu tax audience bi am doole tey. ah oui waaw waaw barke bi la yàlla na yokk yàlla yàlla nangul la. man mën ngeen ma may deux minutes ci seen temps. imaam ñaanal ñu bara nga dem plateau. waaw yaa rabbi yi nangu leen ñaan. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin. demoon te woon ñibbi si yàlla ñu dellu yàlla na yàlla defar Sénégal na la yàlla weer amin amin yàlla na Sénégal yàlla na yàlla oyof yàlla na Sénégal am sécurité yàlla nañu am jëkkër amin waay ak xaalis bari ñiy burux lu bëgg a dugg te bokk ñu woon yàlla buñ tugg insha allah amin yaa ay ca na bu dox la ah dama doon ñaan bi. maa ah, baax ci yéen nag euh, damaa concentré wu. pas de transhumance soppikuwoon yéen ah, waaw waaw waaw déggoo ma ni ñiy burux lu di dugg. te sàccoon te lewagul ñu bëgg a duggaat kenn ñenn ñi naan waaw waaw nañ leen bàyyi may leen temps ma naan eh. lu tax nga bokk. <laughs> bi ñu fii dóor nit ñi ñoo fi toogoon ñenn ñi naan xale yi dañoo réew. <laughs> tey ñu toog naan waaw il ñu may leen temps di di rafet di yee eh, yaay. di nag naqari deret biñ kan ci ñu jàpp ñu. waaje ñu ga ngeen romboon eh ka ngeen borom simis ba ak jiin ba ngeen romboon karang. Ah, xamu leen kan la ko tey waxaat. xam nañ ko kay. kan mooy ñuy buruxlu. waaw ñi fa ñi daawoon. non bëri na. non ka doon seet. ka doon seet seetkat ba ca Karak. Karak borom simis ba kii xam nga. waaw na jàll na période bi seen kii dafa dox. sama côté la Karak day tali moo dox. Karak waaw non non Karak mm-hmm. am na tamit koo xamante ne. moom du du mais am na système bu bees léegi léegi euh, jéggeetuñ jéggeetuñ frontière. Mm-hmm. système bu bees bi mooy dañuy jëli dañuy jëli léegi jëli maanaam dañuy jëli loose ah d'accord. Mm. nga dégg ñu ne la ponk la nga kaarang nga nga assuré ko dundam pendant li mu fii nekk yëpp. Ah. jëli ko mu ñëw dootoo génn yow. Ah. yaa ngi sangu yaa ngi saraxe. ba fa kii ah. waaw am na am na ku mu ku mu dénkoon alma dencoon almadi de. mais li ma la mën a wax. Euh, avec Ousmane Sonko. Mm. non Nabou bio boo seen xel dal. suñu xel na dal de ah. na dal. Ah, waaw bu ñu mës a xoolal caravage bi day dal ba nga yëg ni dal na. bu ñu mës a fàtte ne ki ma romb ci kanamu taxi bi. xiir ma faal gi. laay laay la ki ma romb ci kanamu taxi bi. muy xuloog cag cag yi. di régler circulation. Ah, ma ne woon dafa am jabe suukar sa daay yëg. <laughs> wàccagul ba tey soxna kenn ko wax mu ñaaw rek dem na moo la woon. daa naqari day fan yi dafa tàng xol. ñu dem ñu dem ci beneen ñu ñëw ci Pape Papa Assane nag rapport rapport nag yi ci rapport yi waaw waaw wax nga dëgg Papa Assane très rapidement. Euh, président euh, comme ni mu ko sàkkoo donc yi mu soxla yëpp dinañ ci taxaw kii ko ah. kan la. Ah, ah ah moom la sama sama PV bi ma def sax moo gën a baax bi ñu ko defal. Euh. boobu yëpp foofu la yabaate commencé. Ah. ko moom dafa yàpp askan wi dafa yàpp askan wi. ko waxoon de. ba mu waxee loolu nag dañ ko waroon a génne indi na fi Ngom Keïta na ko jébbal ko dossier yëpp te nga teg toge tooge ne abal ñu may ñu ñu régler li ñuy régler. mais moom dina dem moom. dana dem waxuñu ko ay dana dem nañ nañ ni ñu def Moussa Fall nañ leen ko def. te amul yërmande naan musaa autorité gis naa ñuy taxawaalu ci télé di ko defendre naan wooy Moussa Fall armée la nekk gendarme la Ablaye Wade waxoon lan mooy policier lan mooy gendarme. dëgg yàlla. tenue bi moo ñu wutale tenue bi li ci nekk mooy vert zone rouge bi. drapeau ak ak ak ak kii bi nuñ ko tuddee ci. Euh, étoile bi nekk ci digg bi un un peuple bi une loolu ñun suñu réew la ñu respecté mais respecté wuñ tissu bi tissu bi balaa cinq ans mu nekk ca poubelle ba. Mm. wala six ans. mais ñoom jëmm yi ñu solal tissu boobu bu ñu réglé wul ñu ne leen réglé wu leen te li ñu fi def. ku leen defendre yaag ma ñoom a yem. Mhm. quatre-vingts morts. Mhm. am ñu ñu dagg seen tànk. am ñoo xamante ni waxuma mort ñu nga tëdd feebar ba léegi parce que seen doom dafa dee. ci dee ak deeyin wu ñaaw. Mhm. loolu ñu ne dañ ko gas suul wala nañ ko négocier am suuli rek mais loolu Ousmane. bu ko defee réew mi tàkk. la ma doon wax dem. démb dugg di ñëw mënu nekk paragraphe bi sax tëbal na amnistie bu yàgg. Ah. mënul ah, leen paragraphe bi teewal ah, ah, kii euh, amnistie gis nga ma waxal la benn affaire lool bu ñu koy def Sénégal di takk eh, di doom langaam moom nañ xam ni amnistie bi dem na parce que am na ci xale yi ñoo xamante ni. Mhm. jàppe nga leen ni ñoom ay nit yu simple lañ nii. fekk mukk fekk am na lu yàlla namoon ci ñoom def ko ci ñoom. waaw léegi yàlla moom nga toog ne dana xo dana toog di xoole ñuy waxuma sax di xoole pour bañ a ñàkk teggin dana toog di seetaan ñu toroxal xale tiim ko dóor ko bal mu daanu tranquillement nga digalaat. ñenn ñi nga rey nga jël leen sotti leen géej. léeg-léeg même même même drapeau ñun bi ñu la respecté ba peut-être di la wormaal am na ku ko yor nga jàpp ko dóor ba muy bëgg a dee. yow nit yor fi drapeau di manifester nga ne ko xëccam kaay. drapeau bi nga yor yow mi Pastef nga bokk dugal. ubbil nga ubbi. mayo Sénégal am na temps yoo ñeme ko ko sol waaw seen seen naataango boobu ñu mbéj. brutalité ku jigéen mbéj ko football. ab sa ab sa na de. mbéj football waxuma absa di ñëw ñu absa Sénégal la mais ki soloon période bi xaw ma. Adja la fille là kooku du journaliste du journaliste mais mais mais loolu lan moo ko gën a ñaaw lan moo ko te nag gis nga li ngeen xamul nag. ngeen baal ma. xasuma kenn mais ñi daan jaay pañe gerte. waaw xale yu góor yi daan wër kaas. waaw ñooñu ñëpp ci rañu Macky Sall dañ leen recruter dugal leen police ak gendarmerie. ah borom yanu kaas. gisati nga leen fii amatul. Eh. léegi kooku yow daar daar dañuy eh. yëkkati. léegi kooku bu jàngul xamul luy yoon dañ naan ko dóoral rayal. yaa seex Mamadou la. PV bu jub sax duñ ko mën a bind. dañ koy bind fu koy bindee. te ay xale yu ndaw la ñu la kaas fukki dërëm kaas juróomi dërëm kaas cent franc. loolu tax xamuñu droit tey kaa ñu dugal nga dugg. nañ dem ba ci kanam ba ñu am deux mois trois mois da ngeen gis lu leen yéem. mooy rapport yi ñuy génne. ci gendarmerie ak police. noo ubbi leen seen bët ngeen xool. xoolal xale bi ñu jëloon comme bouclier. bouclier cette image là. lii boo jàngoon dëgg dëgg dëgg yow li la war ndax di nga jël xale bii mooy deuxième bouclier xam nga fan lañ njëkk defee ay xale bouclier ngor fii ci manifestation ya ma toog ca kaw bind ne dañoo jël xale yi non non avant Adji Diallo première manifestation bu ñuy xeex bi gendarmerie ñëwee jël foofu te xeex bi metti bu njëkk ba xeex bii passé bu mujj bi xoolal mu ngi nii dimanche la ñu jël ay xale nag ah mais xale yi xam nga li image la man dama ko. mais ñi def li ñan la police la wala gendarmerie. ñu jël ay. ah bon xale bouclier. dañoo jël ay def leen bouclier coow ne ñun waxuñu woon dëgg dañuy désinformé. désinformé euh, euh, loolu amul. mais ay image yoo xam ne day day fekkee ko nii. gis ay xale yi ku joxe woon ah, ñu jël leen xale yi def leen bouclier xam nga pour lan la moo tax ñu def leen bouclier parce que dañoo demoon ba manifestant yi xaw nañ leen rey na rey xaaral ma wax la rek xaw leen a rey xaw nañ leen rey rey ñu bañ ñu sànni leen comme saa comme ñoom dañu xaw a am yërmande ci seen yeneen moroom yi ñu mm. jël ñu jël leen teg leen nii bu ñu sànnee ci ñooñu lay dal pour manifestants yi reculer c'est grave fa la ma GIGN bi dooree woon mu door la parce que ci bopp réel ok li nga daj jël sama téléphone sànni ko saa waaye moom kan la doone Saliou léegi xaw naa de baal ko nag moom génn na ci. imaam bu bu ñu la déggee raxas na ci xam naa ne moom gaa yi war nañ ko war nañ ko bàyyi non kooku raxasu na ci ba set soldat dëgg la ko nuyu bu baax imaam bu ñu la déggee ni ngay waxee nii mooy ni amnistie moom way non non amnistie moom euh, mon ami amnistie ku ko fi def ku ko fi def wala nga seetaan ku mu jàll tamit wax dëgg yàlla bu ñu demee ba ci yàgg da nga am lu la métti ci sénégalais yi parce que li nekk ci biir kër yi xam nga lu ko xaw a seral lu ko xaw a apaiser noonu mooy Pastef bi nga xamante ni ñoo nekkoon bitim réew. doon yónnee ay koppar dëgg yooyu ñuy ñëw ci kër yi di leen di leen di leen di leen defal di leen dalal mais defal yooyu dafa am lu ñu ko accompagner mooy ni. justice dana danañ danañ ko topp ak ñoom ci justice mais nga ñëw ñu ne la sa doom ji dee. ci lañ bokk ci émission bi. sa doom ji génn àdduna. Ah, bon amnistie nañ pare nañ ci dootuñu ci waxaat. duñ ko wax duñ ko ubbi maa ngi dégg. Euh, président suma ma juumul mu ne dana leen dimbale. xaw ma indemniser waaw waaw indemniser mais man li ma doon rafetlu di ko ko ñaan. Euh, parce que ki gaañu tamit amoon na yéene ci ndeyam a baay mais pourquoi pas ñu jox leen ay terrain tabaxal leen ko. jël leen ñu liggéey. waaw ah, jël ñenn ci seen biir famille. ñu liggéey ñu bari ñu tabaxal leen cité boo xamante ne nag ñu ne cité bii la waa Macky Sall rayoon quatre-vingts personnes quatre-vingts personnes yooyu ñoo dëkk ci cité yi. ay loolu ku koy imaam est-ce que ëppul 80 xam nga lim gi dañ ci bañ a jum rek waaye li faatu moom. waaw pour bañ a jum moo tax ëpp na loolu de ëpp na loolu xam nañ ko xam nañ ko ak ñi ci gaañu ñi faatu dañuy wax mais état daal am na doole yi am na doole yi jàppale leen jàppale leen mais nag duñ leen jàppale jàppale ñi ko def ñi ko def nañ leen taxawal ñi diw ak diw ak diw bokk nañ ci ñu rey nit ñi ak arme yi eh où est le numéro 9 le numéro 9 45 arme yi ñu jëndoon waaw ana arme ya cinq ah. milliards. waaw armes yooyu anam loolu. dañ ah, ko war a ministère de l'environnement. armes yooyu dañu tudd ca présidence hmm. dañu wax ne armes yi récupéré nañ ko. yàgg na jëlaat na ko loolu dëgg waaye armes yi. Ah. jënd nañ ko mun nga pale. ñeneen a falu nañ ne armes yooyu ñu ñuy jëndoon. Mhm. récupéré nañ ko mu ngi bërëb sàngam nit ñi seen xel dal ndax bu dee mu ngi ci ay nit ah. te te balaa maa dee ñenn ñi ci ñun naan waaw président comme falu na dafa war a dem dëkki pale nooy dëkkee pale bu am arab yow arme yooyu nga gis. Ah, arme arme missile ya am na. Ah, ah, am na mystique mystique. mooy. moom palais duñ fa dugge noonu. <laughs> ñu ne Marème Faye Sall duggewu fa woon noonu ñu dëkki feneen. ah way xamal ñu palais miir yëpp dañ ko miine. te nag imam dañ ko dañ ko miine mooy. xam nga tey boo xool